dama ñëw seet si sama xarit euh, sama mbokk sama doomu ndey euh, sama koo xamante ni ñoo bokk réew mi te ñu jël tuuma euh, teg ko ci deram ca loolu garaawul ndax tuuma alali gor la ku am looy daw rekk lay dal ndax am na ñoo xamante ni du leen laal lu mel noonu nag su amee bu dalee sa nit dal sa mbokk da ngay nekk ci wetam nga massawu ko nga aar ko nga yiir ko waaye nga dindi tuuma jooju moo taxoon ñu ñëw tey indil ko suñu taxawaay indil ko suñu jàppale indil ko wax ko ñu ngi koy massaw waaye du ñu yem ci massawu ko rek lii di xeexuk politique te Macky Sall indi ko ci dinañ ci ànd ak moom ak ay ñoñam ñi xeex ba nga xamante ni kenn du yàq deram ñi xeex ba nga xam ne li nga xamante ni ay droit am aussi kenn du ko yàq ndax lii mbirum politique rekk la te du fi gan ndax justis moo amul ci réew mi loolu Sidi lamin ndem si yàlla jo doon wax ni justice moo am fii waaye justis amul ndax lu mel nii am na ci mbirum Karim Wade ñu jël justice su réew mi jëfandikoo ko noo xamante ni tax na ba Karim Wade mënul woon a nekk candidat ci élection yi ñu génn lu mel noonu am na ci mbirum xalifa Ababacar Sall ñu jël justice utilise ko noo xamante ni tee na Karim Wade Khalifa Ababacar Sall nekkul candidat mbir miit loo ci mën a dégg lu coow li bari bari bari lenn rekk ko tax a jóg mooy Macky Sall nan la mën a def ba Ousmane Sonko du nekk candidat ci présidentielle yi ñu jëm ah doy na nag loo gis rek am na am na fu muy jo fu muy fu mu war a jeexe ñun moo tax dañoo war a xeex ngir aar suñu démocratie ngir aar liberté yi waaye ñu xeex ngir Ousmane Sonko àqam ak ay droit am Macky bañ koo salfaañe